provisoire bi am na si am na euh, am na euh, sànq nee na ma trois mille et quelques voix la euh, trois non six mille hmm. Hmm. sëñ bi six mille six mille mille et quelques voix la ci am hmm. salaamaaleykum sëñ bi sëñ bi na def jàng jàng jàng ah, jàng naka waa kër gi waaw ñu ngi ñu ngi nangu ziar bu wër di la ko dellool masa coono masa coono waaw masa vraiment xam nga yow danga bokkoon ñun ci suñu candidat préféré yi euh, ñu toogoon fii ci télé bi di la di la di la di la campagnal ñu nëbbuñu ko ah. làkkuñu ko ñu assumé ko ndax dañ jàpp ne yow ci sa taxawaay ci réew mi ak sa bëgg réew mi ak sa am fit ak sa dëggu euh, ku ah. amoon solo nga yow naturellement sax euh, député du peuple nga ndax peuple ba ngay waxal donc ñu jàppoon ne ku am solo nga ci assemblée waaye bii nii dafa am solo ndaxte euh, dëgg-dëgg maa ngi koy waxtaanee léegi ak ñoom aadama ñu ngi lay nuyu ak Abou Diallo. maa ngi fay ñëpp. waaw ah, Abu Abu mi ngi foofu. ngi nii toog ah, oh, waaw après naa la ko paas. son euh, excellence. walaay donc vraiment résultat provisoire yi génn. ñu bëggoon nag euh, am na sax sa benn audio fuité xaw ma xaw ma dëgg la xaw ma dëgg boo xam ne euh, nga ciy wax ay waxu trahison wax yi ni mel euh, léegi dañu bëggoon wax lañu bind turam léegi dañu bëggoon sëñ bi nga ñëw ak ñun tiiral ñu benn billan sa participation campagne bi noo ko dundee ak yenn galgal yeek yenn kii yu sew sewaat yi nekk ci biir ak surtout nag résultat yi yow ban jàngat nga ci am jàng maa lay gërëm euh, soxna Aïcha di la sant di sant seetaanu moom moo tax euh, di sant ñi ci sa euh, plateau ñëpp commencé ci audio boobu ah, fuitewul fuitewul mën naa ko publier yow sa bopp yaa ko publier maa ko publier ah, yow mu nëbbutu woo moom yow moom mosoon nëbbutu maa ko maa ko publier hmm. simplement xëy na nit ñu tekkiwul a ñu nekk ci Pastef. Mhm. ñoom ñoom dañu dañu dañu ay manipulateur lañ. Mhm. ay coupé collé lañ. ñu dagg fi waxee ne vingt huit. Mhm. Euh, véhicules yi yëndoo daw ba ngoon. te bureau yi amul ci benn de trois à dix voix. en tant que man expert politique maa posé débat boobu. pour que Touba posé débat boobu pourquoi ça. moo tax ma publier au niveau ci bi du groupe. directoire mhm. euh, national laa wax. Mhm. ne leen lu tax ñu luyee vingt huit véhicules. Mhm. oto yooyu aussi du ñu oto yoo xam ne dama ko luyee woon. ñu tegu ci nit ñi nit ñi ñoo ñëw demandé ma ko. ci ñi bindu woon ci suñu waa kër yi. parce que non seulement que masse bi. defoon naa ci lu ñu war a def. mais àndoon nañu lu ëpp deux cent dix huit mbootaay. yoo xam ne fii ci man lañ bokk. macha allah dañu soxla woon ay oto pour pour se déplacer. Mm-hmm. biñ ma ko demandé ma wax ko Thierno boobu may wax ne ko. Mm-hmm. utal ñaar fukki oto juróom-ñett yoo xam ne dañ koy tourner autour de. Mm-hmm. ñoom ku ci pare rek fu mbooloo paree rek. bu ñu wootee rek maanaam envoyé leen benn. noonu lañ koy yendoo def ba ngoon. alors bi ñu ko defee ba ngoon. ñu gis ne bureau yi trois quatre ba dix lañ varié. sur l' ensemble des loolu laa leen loolu nan la mën a nekk. Mhm. ma posé débat boobu. Mhm. parce que parce que dama leen lii man trahison laa ko mën tuddee. Mhm. parce que ñoom ñëpp bu ñu wootee woon c' est des dizaines c' est de milliers may leen loolu méttiwuma parce que ñàkk ma wooteel métti ma mais mais ñu wooteel camp bi nga xam ne xam nañ ne nooy Serigne Touba yi ko doon xas ñoo fa nekk te ñoo leen fa mu làkk. waa Touba des loolu. loolu trahison la bu waa Touba njëkk a def trahison ma trahison la boo xam ne waa Touba ñoom ñuy wax. bu mhm. dégg ba ci ne dañuy xeex góor jigéen ci Sénégal. Mhm. xam nañ ne kat Ousmane ñu ñu wooteel te xaw ma quatre-vingt-dix pour cent. Mhm. dafa refusé wax ci loolu. ginnaaw bu mu ci campagne deux mille dix-sept toujours. acharné sur Macky Sall ci affaire góor jigéen. fu ne mu toog fa waat ne bu toogee da koy da koy da koy criminaliser. bi mu toogee ak góor jigéen la njëkk a dalal. ay gu ko gën a yóbbu université boo xam ne nëbbu ko làq ko dana non seulement que man moom laa ne moom laay défendre ba défendre naa ko ba réussir boobaaga léegi Ousmane Sonko waxatul jàpp ci mm-hmm. kon yéen lu leen war a mën a kon yéen ñi nga xam ne yéen doon bañ loolu bu dégg bëccëg lu leen mën a boole kii xaw na ko mm-hmm. dégg naa sax ñu dëgg gii mooy saaga maa tey ah, ah. <laughs> mais ce ah, que nit li mu wax nii mooy saaga waa Touba maa yaa tey comprendre nga man baay ak yaay ak maam ak maami maam Touba lañ dëkk waxuma maama moom Touba mhm. dama ne maama moom Touba wallaahi wallaahi nga baay ak maam ak ñëpp fi lañ dëkk mhm. lii saaga maa tey mhm. mais leen nag ma posé débat boobu ngir ñu wax parce que lenn lan la parce que vingt huit véhicules groupement féminin yu ñu àndal mhm. yu mujj fii jaaduwul mhm. mais nag ñu xamal ma ginnaaw enquête buñ def mhm. ay la yéwén ci individualité yi ñu jël nga xam ne ay imam lañ ak seen soxna par benn par ñaar kenn ku nekk nga xam ne da nga wotee génn li jox ma ma gis ci bulletin Pastef ma xam ne wote woo ko parce que man loolu exiger bi ñu wàññee am nañ ci cinq cent dix huit waxuma sax groupement individu lañ wax te cinq cent ñu gis moo ëpp ñu nombre bi ñu jox xam nga élection yi sérieux. waaw doy na waar. Mhm. xam nga élection yi sérieux. Ah, ak sa euh, gis naa ci koñ yi ay quartier yoo xam ne ci àll ba lañu lañu lañu lañu def ay abri provisoire def ay centre de bureau de vote ak yu ni mel. déedéet déedéet man am naa problème fii. fii ci Iripoor sama koñ. bi mhm. ma ñëwee fekk si benn waajoo xam ne Pastef la. waaw bi ma ñëwee dama dugg rek ne comme présenté wu tête de liste nationale non seulement que ma tête man maay man international mm-hmm. damay vérifier le positionnement des des des disons des bulletins mm-hmm. xam nga lu ma def damaa jox code électoral ne ma code wul parce que gouverneur wuñu ko fan la existé ci code mm-hmm. ma ne ko mais mais hiérarchique

seen yoon nekkul ci loolu après ma woo DG des élections ñu ngi may dégg mu ne ma non positionnement yi doit être respecté ma wala préfet mu ne préfet ne ma les positionnements doivent être respectés non seulement cela o man dama leen di aaye ñu teg carte o ci suuf parce que dama ñëw fekk se o yi parce que bi fi nekk président de bureau nu dugal ko ci ron table ji teg ci basan tegaat ci saak nga xam ne man diggante dix heures ba quinze heures man héliport man fi ma dëkk. waaw waaw waaw c'est grave. bi jàmbat yi bare ma ñëw. ma mhm. constaté loolu nekk constaté loolu nekk réalité. bon mhm. après préfet yónni commission. bu jógee ci sous préfecture. Mhm. ñu ñëw réglé ko réorganisé waat ko. bon yooyu yëpp am na fa. si yàlla nañu ba tàyyi suñ demee suñu bulletin dañ ciy teg ay dañ ciy teg benn lu mel ne buus wala teg ci caabi suñu ji. mais yooyu amul solo. dama ne leen man toll naa. toll ma si Sénégal fu may contesté élection. passé naa ko. man man sëñ Modou Bousso Dieng laa tudd. Mhm. lu ma naqari fii neex ma feneen. Mhm. fa ma mosul teg tànk. Mhm. biñ joon na watal nañ ma. C'est mm. mm. mm. les 46 départements avec un nombre important je pèse aussi presque 7000 voix oui oui oui oui c'est important Et, coalition c'est seul encore maa maa am loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. te te li ma ci neex mooy man lu ma ci def maa ko moom. ah bon amoo benn financement extérieur wala ay aada ak yooyu yu ñu. wala may la donte cinq francs la. ay surtout ñaari oto la campagne yi ñaari oto yëpp maa leen. est ñaari oto. ah am t-shirt. am influenceur. musuma. mësuma def def hmm. benn gumbaay wala ben lu jëm ci lu jëm ci comme ni politicien té def mhm. te jëruma kenn ah, ah, mhm. loolu man rek la ci Sénégal deug la yox yaa def la ay valeur la don la don la don la don prôné wala ay vert moy moy man sécurité laa jàng mhm. discours euh, traditionnel des fondateurs confréries yi fi nekk mooy tradition mouride wala tradition tijaan wala yooyu discours yooyu garder leen ko parce que saa bu ñu noppee am ñoom yar bu ñu yar sécurité nationale bi menacé parce que ñii fi dugg di ay salafis dama fekkee ñu dugg Mali Mali gënoon développé Sénégal Mali demoon ci teg nekkoon démocratie comme Sénégal Mali mujj chaque jour kon ñun nañ garder discours d' bii nga xamné si, bo démé ci archive magni da ngay gis né niñu niñu ni bind naa ko sax euh, bind ko sax le rôle des chefs religieux musulmans mhm. pour ah, pour la prévention mhm. et préservation de la paix au Sénégal mhm. dama ci bind ñoom seen discours d'apaisement yi mag ñi mas a yor naka jekk ak seen action de médiation donc yooyu ñu fi nekkoon ba léegi nañ continuer garder loolu saa bu ñu leen demee ba régulateurs sociaux yooyu acteurs clés de la préservation de la paix yooyu suñu ñëwee ba yàq leen ñun kat Sénégal jeex na te am na ñoo xam ne loolu lañ bëgg loolu lañ visé te ñu ngi fiy dugg ci discours boobu lañ yor sañu bañu la libéré mooy Euh, xam nga nag euh, Cheikh Omar Diagne démb sa génn ci benn télé ñun dañ si ñëw après sax di jubilé waale euh, mais boo xoolee dëgg-dëgg tarixa yi cité religieuse yëpp daanaka yi nekk Sénégal Euh, ñoom dañ faa Pastef dafa am ndam lu rëy rëy rëy rëy moom sax démb mi ngi doon wax naan campagne opposition bi yëpp ci moom jëkk ci moom la tourné léegi moo doon directeur de campagne opposition bi yëpp waaye euh, am na ndam ci kaw yéen euh, lu mel ne Touba da dégg sax ay waa kii ña fa nekk ña voteel daal di ne ñun dañuy sànnil Jamra Ousmane waa léegi yow sëñ bi noo jàngatee dëgg-dëgg Euh, li xew nii mu mel ne ndamu Cheikh Omar Diagne bii ci élection yi euh, dafa mel ne daal euh, war nañu saytuwaat diggante sëriñ beeg taalibeem lu fa xew daal wala yow ban jàngat nga ci am. non du taalibe bi simplement. bu dee Sonko ak Touba dafa am yenn sëriñ yoo xam dañoo jekkat yi hmm. yenn sëriñ yi jekk. Hmm. sëriñ yi jekk di jàpp nañ ne ñoom. bu mm-hmm. ñu Ousmane Sonko sëriñ yi jekk ñàkk liñ yor. Mm-hmm. c'est un problème familial d'abord. bu dee fii plusieurs mbàkke mbàkke mm-hmm. yoo xam ne si moo combattu de xaw ma leen sax. parce que sëñ Mor Bousso ñëwoon gën a jekk. c'est aussi simple que ça. ñu dem pare Ousmane Sonko ñeneen ñi sont trahis. yenn yi ay cheikh lañ ñi nangam am na fi. Mm-hmm. am na dans tout les familles. Mm-hmm. loolu nag moo s'imposé moo diviser famille yi. Mm-hmm. léegi euh, ñoom ñoom ñoom ñoom maanaam ñoom ñu profité ci. ak ak complexe bu metti ci xale yi. mais du sax nag ne seen leen seen force la mais ci division bi am dans les familles religieuses division boobu division boobu lañ exploité. profité ci nga xam ne si kenn ku ci nekk am na ñoo xam ne ba ñëw tey Pastef sëñ Modou Bousso Dieng sëñ Modou Bousso Dieng lañ bëggoon a sanctionné parce que fii du intérêt bu Pastef def treize mille def kon ba ba am nii ay ay sa ay mbokk sa ay mbokk sa ay morom sax ñu jóg ni jàkkaarloo ko yow ne bëgg a bëgg bëgg a defante ak yow jaarale ko ci Pastef moom mooy la am Kaolack boobu nga wax mooy la am dans toutes les familles religieuses kii jékk kii jékkul rek mun njëkk indi rayante ci ñaari doomi aadama d'accord

su doon su doon programme bu baax. Mhm. man man ñu wax ne dinaa dinaa institutionnaliser màggal gi. de telle sorte que du bëri mukk ñu ngi ko naan du ñu jox ay ay chambre wala dix millions. le mhm. moment où Diomaye nga jël Sonko ngi dëkkoon. Mhm. di war fa fay ay dizaines et dizaines de millions. xam nga ne su boobaa kon waxuma sax may seen bokk mais ma teg pro dama teg programme dañu lànk bëgguñu ko dégg. kon xam ne. am na am na leneen lu mais de toutes les façons soxna si man man may conclure politique c'était quand moins pour man pour continuer ci liggéey bi may def dëgg la benn benn moyen la ci mhm. su fekkee ne moyen boobu dëggul mhm. dama koy football fële continuer doxi continuer waat yeneen mooy ma parce que ñii kat mooy taw muy naaj daa leen défendre waaw te nag désormais ma xam ne je pèse de sept mille voix doole la kenn du fi waxatu lu ma lu ma du fi amee waaw lu waaye wax dëgg sa kii dëgg la lii laa bëgg tënk kontaan nañu waaw mu tudd baa ma joxe sa xel Abou Diallo waaw sëriñ bi sëriñ bi ñu ngi lay félicité jërëjëf Abou le combattant Abou xam nga yow da nga am ñaar da nga am ndam li ma koy faral di waxee ma ne ko ndam li nga am. mooy mm-hmm. mooy yow rekk mm-hmm. yow yow voix religieuse. bu ñu mm-hmm. attaqué institution religieuse yi. attaqué xaside yi. mu jaral la nga jël list mu jaral la ñu jàppale ci dig convoqué nga ñëw nga ñëw ba ci buntu dig. jàkkaarloog institution bi wan leen ni Serigne Touba. jaral na mo sax la nga ca man sax mu ñëmé mu ko tek mm-hmm. pour won leen ni fi nga tek serigne bi mm-hmm. mm-hmm. motax tax ko ci télé mané yow ak serigne mustapha Al Amin serigne mustapha Al Amin ci digg bourdou bi la tok jika mm-hmm. kàddu jëmale ci Cheikh Omar Diagne. mana mm-hmm. kau wax ngir kamu ma ne ko yéen ñaar nag xam nga yéen ñaar. Mm-hmm. da ngeen wax te xasida yi ak xilaas yi. defar na ay milliardaires. defar na ku ne. defar na ku ne yow ndam loolu nga am. beneen bi côté politique tamit. dafa am yow yaa defar Ablaye Sylla man. da nga def tournée waaw mm. dafa def tournée gis nga sëriñ bi moom moo dem ci wër Sénégal Sénégal mm-hmm. yëpp génn club cent cinquante préférence nationale mm-hmm. bi ñu demee ba ñu tolof tolof yi nekkoon ci problème sénégalais yëpp dañ jàppoon ni ni ñu bari Mm-hmm. Mm-hmm. parce que loolu aussi tamit ci côté politique. Mm-hmm. parce que personnellement man bu ma xamee ab bu ma défendre cinq cinquante bi noonu préférence nationale bi. presque man euh, ci yow laa ko déggee. mais Sénégal fépp nga wër quarante cinq région yëpp. ki nga daan wax. di ko quarante six yi xaw ma di ko di ko di wax di wax programme am ak sénégalais yi ni nga xam ne ni noonu lañu war a bàyyee xel préférence nationale. mu nekk l'absent le plus présent. kooku ñëw présenté liste dafa bari sénégalais yu bari yoo xam ne ni foofu ba mu fa jaaraatee. ñu bari dañ defe ne yéen ñaan benn ngeen. waaw loo loo loolu tamit foofu nit ñi bàyyi xel. dafa am combat de économique boo mënee woon. Mm-hmm. ba sauvé ci Ablaye Sylla. Mm-hmm. ba redorer ba ba redorer son blason après nag bi nga ñëwaatee di campagne ñu bari ci yenn dëkk yi comprendre duñu woon. Mm-hmm. c'est ça précision may def ci loolu rek. man man loo ma sa def gëm naa ko. Mm-hmm. lu ma bokki dama cay bokk leer na ba ma ca bokkut leer na. Mm-hmm. su may waxee yow nii daal. union du groupe parti bii di sama parti politique moom laa yor. Mm-hmm. ak confédération internationale des familles religieuses yi nga xam ne moo fa mu chef religieux yu bëree bëri ci Afrique. ñaar yi daal laa yor. yàlla na dogal na ci loolu ñu am lu jóge juróom-ñaari junniy voix. waxuñu waxi keneen suñuy wax la wax. muy leer. dëgg la suñ seet mille voix yii nag. dañ ko gën dajale takk ko ba mu mel naw say li sien blaat Mbàkke daan wax mm-hmm. Sénégal fii ku fi wax juróom ñaari junni sénégalais mm-hmm. ku leen yor ku nekk mm-hmm. sa baat war na fi taxaw luñ daan wax benn danañu ko wax fukk ak juróom nit ku yàlla defar ku ñu mën a tiital fii banaan nu fi baax dégg nga dama ko baax dama leen Ousmane Sonko dama ne leen Ousmane Sonko maa ko dàq jàng téeméeri junni yoon dama ne la Ousmane Sonko. Mhm. maa ko dàq jàng. Mhm. maa ko gën a jub. Mhm. waxuma nag commenté wu ma ci. ñu naan sëñ ma du waxuma juddu déggal ma juddu na ne maa a te buñ bëgg ma génne leen preuve bi. su dee diplôme nañ teg. su dee jub nañ vérifié. passé. comprendre nga bu dee parcours nañ teg hmm. passé hmm. ok man ba may xeexal Sénégal goo ma ni Sonko am na pàkk hmm. tey lay lay la coowul ay booy lu ñuy monté tax ma koy wuyu man man yëgu ma ne seen waajuru jigéen tudd na man man Sonko seen bàyyi laay tontu mais duma tontu yi xale comprendre nga moom xamuñu wax xëy na xamuñu ne seen bàyyi Ousmane Sonko xam na ne baax a baax a Mm-hmm. lu ma daan def benn dinaa ko def ñaar mm-hmm. victoire parce que yow la seule voix parce que yaa ko fasee ci kaw am na ci ñu bari ñoo xam ne ca suuf ñemewuñ koo génne am ndam mm-hmm. gis nga te parce que Ousmane Sonko ñu fi nekk ñëpp ko profite su fekkee ne moo mën a mel ne benn septicine ba tey mu mel nii askan ñi ne ci dëkk askan ñi ne ci dëkk dëgg wallahi inna la saadixoon ak tawakkul ala rahman wallahi inna la saadixoon yàlla seede na ñoo ne ci dëkk te yàlla dañ wan nañ ñoo ne ci dëkk asalaamaaleykum wa rahmatullah